suñuy doom na def noonu ba génne leen ñun suñu yoon nekkul ci lu muy lu muy xalaat ak lu mu bëgg a def ay eh, am na si moom la intéressé moom la ko moom moom loolu moom la intéressé moom ñun intéressé wuñu ñun suñuy doom ay gor lañu ay ay jaamukatu yàlla lañu ay liggéeykat lañu benn xale taxawaalu ci koo ci gis am na ci lu mu jàpp man sama doom moom a doon dimbali xale bu ndaw la mais billaahi wallaahi moom ma doon dimbali di dimbali papaam ana mu tey ñu ngi ko tëj ca kaso ba loolu dafa ñaaw dafa bon dafa war a jeex ci mim réew far musu fee mën a ñàkk waaye léegi ñoom xaa amuñu ndey ak baay léegi ëllëg après flash daldi xaddee mu mujj fan léegi nag ëllëg ak siddi kenn ñaan ko yàlla waa lu mel ni su amatee nit defatee lu ko neex après indi beneen loi teg ni nañ def nangam après léegi nag ëllëg nag ñun ñu nekk bëgg a dee ci bu mu njaam ñun ay gor lañu bu ñuy dund dañuy gore bu ñuy dee dañuy gore